inna lillahi wa inna ilayhi rajiun wa man yaxruj min beytihi muhajiran ila allahi wa rasulihi summa yudrikhu lmawtu faqad waqa ajruhu ala allah inna allazina sa'u li xidmati falahum diyaara wastal jannati assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh bokki jullit yi bokki taalib yi ñu ngi leen di nuyu ci tuur Sëriñ Habibullahi moom Cheikh Mahamadou Fadal ak ci turu mboolem waa Touba ci kanam sëriñ Habibou di yëkkati kàddu ci turu Cheikh Mouhamadoul Mountakha mi fi nekk sëriñ Touba moom mi nga xam ne liggéey bii nu nekk di ko liggéey moom moo nu koy liggéeyloo suñ dogal mii dogal nag dogal ci ab dogalam tey jii am lu xew ci biir liggéey bi xew ci ñooñ liggéey bi di ay bokki taalibe yoo xam ne dañoo jugoon jaayante ak sëriñ Touba ñëwoon ànd ak ñun di liggéey sëriñ Tuubaa yàlla doogalee nag nu ne ci liggéey ba sun borom mi nga xam ne lu am mooma te sañ te man tey def tey dindi te kenn sañu ne ko lu tax nga def mu def ci coobareem ak kattanam ak sañ-sañam jëfandikoo ci ay jaamam la ko ca soob te muy lum sañ te du tàggu kenn te waxoon na ko ba yàgg nag mm. kullu nafsin saa'iqatul mawt allazi xalaqal mawta wal hayaata kon mbir la moo xam ne mu baaxu am la dikkiin yi nag mooy wute ak saa yi muy dikk ak ñi muy dikki bi yàlla dogalee nag mu am ci takkusaan bi nuy woo nu bokk toog nu xamal ne nu am nañu yàlla wàcce ab dogal seen kaw booba sax xaj na dogal faatu ak séegut waaye dogal du jëyee ak si na ban ko yëgee tàmbali di ca ñaan nit la nu woo la ca xew booba itam la nga xam ne moom la ab jaam man daal dinañ koy am tàmbali def muy jug dem ji ki nga xam ne mooy suñu kilifa di Cheikh Mouhamadou Mountakha yëgal ko hmm. bii ko bi nu ko ko waxee li njëkk a waxe mooy ñooñu dañoo saxit hmm. saxit mooy ko dee ci xarab lislaam hmm. boo kàddu rek doy na sëkk dañoo saxit la wax joxe ak ñaan yóbbante nu ci seeni bokk ak ñaan yóbbante seeni bokk dalu xel yóbbante seen yóbbante seen bokk masawu yóbbante ñu seen bokk seeni bokk am njaal ci kaw loolu nag sëriñ xëy bu ak waa Touba ca kanam gépp di ci yëkkati seen kàddu ginnaaw boo xamante ne ki moom liggéey bi moom dem nañ ko ba yëgal ko li xew ba noppi Touba ci kanam di xam la ne li xew day moom yàlla suñu borom moo ko xewal te di ko xewal ci ku ne ku mu ci nun ci waxtu wam ko sàkkee ndax ku ne ba mu la bindee la la bindaale sab digg kenn ku nekk gis nga fi nit alhamdulilah bi alamin nag ñii seen bis dafa agsi waaye mu agsi ci ak seen wu taw feexe ak seen wu ànd ak ndimbalul yàlla ndax xëyal sëñ sa bakkan des ca mu ne su ëpp yaakaar amee su am yaakaar ju ëpp fañ jëm kon mbir la mu diis mbir la mu bette mbir la mu metti waaye nag mu sante ko yàlla ndax kenn du weesu sa bis suñ demee wutoon ci nii it danañ demee ci neneen waaye bisub dem moom kenn du ko weesu li kulli ummatin ajal fa isa ja ajaluhum la yastaxiruuna saatan wala yastaqdimuun kenn ku ne sëb dig du avance minute du retard minute waxtu wa ba accès képp képp ca ngay fàq ku ma ci noonu rek loolu lay nit kon ñoom seenu dig dafa teew alhamdulilah bi alamin nag ba mu teewee ci fekk leen ci loo xam ne mëneesuta faatu ci lu ko gën mm-hmm. mëneesuta faatu ci lu ko ëpp yaakaar mëneesuta faatu ci lu gën liggéeyal Sëñ Tuubaa mm-hmm. kon ñi nga xam ne yàlla doo dogal lii mu dogal ci ñoom noon day ay jaam rekk lan dañuy delluwaat lépp yàlla mooy li ma ubbee te sama doxam wax na lu dal seen kaw na ngeen ko wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun waaye nag laaya jooju ma ci teg nga xam ne suñu borom daa wax ne képp ku génn sa kër dox wuti yàlla ak yonente bi di def loo xam ne yàlla képp a tax ak yonente bi ba faatu fekk la la nga bëggoon am da nga jot sab yoon Sëriñ Tuubaa wax ni ni suñu borom ñëpp ñi nga xam ne gaaw nañ bu ñu ma wootee di ma liggéey danañ gaaw jëm ca liggéey ba na nga leen defal ay kër yu bari ci digg àjjana kon nag ñi suñu xel dal na ci ñun ndax kat ay jàmbaar lañu woon moo leen taxa seen seen bakkan des ca kon ñi nga xam ne ñooy seen wayjur ñu ngi leen di mastaw soo sañu abi bi ak Touba Touba ci gépp di ànd ak ñoom ciis wi di leen xamal ne ba boo seen xel dal te seen njoor taxafet te xam ne li ñu bëggoon ci seen doom yi de moom yàlla defal na leen ndax sëriñ bi moom képp ko yàlla booleeg moom am nga taw feex waaye liggéeyal sëñ Touba nga ne ca biir liggéey ba sa bakkan des ca loolu moom ndimbalul yàlla moo koy maye feex bi kawe moo koy maye waaye yombul ñëpp kon ñoom gannaaw dañoo xëyaloon sëriñ Tuubaa yàlla suñu borom mi wàccee fekk leen wàccee leen ci toolu sëriñ Tuubaa ah ñooñu sant yàlla bu baax la def ci ñoom li ñuy wax de xëy na dañu yàlla na suñu rafet daal mel ne seenu mujj bakk sëriñ Tuubaa loolu rek ci mën a dolli waaye mujj ju rafet mënta weesu xaatoo ci toolu sëriñ bi ndax bari na lu ma koy wax ci bis boo xam ne dafa toog njëriñ ba guddi mu jékki-jékki génn waaxu ba ci ay armeel yu newoon ci ginnaaw mu taxaw ci fekk bi mu ne tëll bunt bi am na ko jox satala gi mu ŋàbb ko fekk mag ñi dañu daan def bu kenn day boof ci bunt ndax duñu xam bunt bu muy génne am ko mu jox satala gi waxu ko dara di waaxu waaye mu topp ci satala gi ba mu dem ba armeel yi ba noppi taxaw ne ko ana kii kooku ku ñuy wax suñu Omar Dibba la mu ne ko mën a Omar Dibba mu ne ko xanaa armeel yi moom ñi ñu fi sool kenn koo mas a wala kenn ku mas a liggéeyal koo mas a liggéeyal nekku fi armeel yi ñu ñu fi suul xanaa kenn koo mas a liggéeyal wala ku mas a liggéeyal ku mas a liggéeyal nekku fi suñu amoo di ne ko ah loolu day mbàkki kumba sama mu ne ko armeel yi de koo mas a liggéeyal nekku fi ku mas a liggéeyal koo mas a liggéeyal nekku fi ndax seen yuux yi moo taxoon mënatumaa nekk ci sama kër gi waaye bi ma fi tegee sama tànk lañ leen jéggal armeel yi suñu Amadou ba mu xëyee ñam ko laaj dañ ko ne ay séeréer yu tuubut lañ fa daan suul xamuñ jullit buñu fa mas kooku nag kon ku ko nekk ci tool toolam ba faatu fekk la ca ah sam xel war naa sa sa njort war naa rafet seen seen seen xol war sedd ci li seen mujj doom yi ndax bu ñu fi nekkoon nit kat xamuñ lu ñuy mujjee ak ñoom kon fii yàlla mujjee ñoom sëñ Tuubaa mujj fee ñoom ak mujj goo fen mënu ko weesu kon ñu ngi leen ci mastaw di ko bokk ak ñoom waaye di leen xamal ne na seen xel dal te seen njort rafet ndax ñaanu sëñ Muntaxa gi ñu am kat amaane sax bu ñu demee wuti woon nii duñu ko am te ñaanal na leen seeral leen ne dañoo sax it te ko fi nekk sëñ Tuubaa lu mu wax yàlla fekk ko ci kon nag alhamdulilah bi alamina lañ ciy teg di leen masaw di leen xamal ne Touba Ca Kanam fas na ko yéene ànd ak yéen ci lépp ànd ko ñi nga xam ne ñooy seen i mbokk ñooy seen i ju ñooy seen i jege ñaale Touba Kanam fas na yéene ànd ak ñoom taxawaay bépp taxaw leen taxawaay ya ca wax di xam le bi ñu joxe ndigal dafa noo boole woon ak suñ basum suñu Abdou Khadre ñu jaar fi ñu war jaar fépp ba agsi fii biñ nga xamee ne yàlla dogal nañu agsi boo xam ne tëli la waa asawuñ ñoo baaxoo di ko gas gas du duñ ko laal ñoom ñoo ko gas biñ ko gasee ba noppi ba ñu xam ne liggéey bi daa war a wéy ñu war a liggéey bi ñëw nekk ca ca la dogal bi agsi waaye ñu xam ne dogal bu yàlla la waaye du càggante du càggante kenn ci ñu seq liggéey bi ab dogal nag moom faw bu jotee day agsi rek dogal moom mu dog yàllante nte ñàkk xam waaye bis bi moom bu agsi faaw nit ki dem loolu rek waaye loolu rek moom te suñu borom jaarale woon ko fii te nag leen a dimbali képp a tax nag ndax bu ñu nawtoon am dimbal duñu faatoo ci tool bi Sëñ Tuubaa kon loolu ñu xam le ne ak càggante wéralu ko ndax ay machine na ko doon gas gas nañ ko gasin woo xam ne tegu na ca yoon wa nga xam ne moom la seen xam-xam laaj ñu woo ko def waaye nag yàlla mii dogal moom moo dikk ko dogalam muñ demutoon foofa it dem feneen nit demee na nu ne nit dem na ci lu ne nit teelu na fu na dem waaye dem ci daal dem goo xam ne fu mu demee ñu ne daa xëyoon ci toolu sëñ Tuubaa faatoo ci daal kooku dem moom yàlla na ko yàlla tawfeexal te ñu te ñu yàgg fi yàgg leen ñaanal di masawu ñëpp di gërëm ñëpp di jaajëfal ñëpp di jéggal